Baye ah, ah Baye Cheikh nii lañ toogee woon sama oto tey nag maa ngi nii ci sa oto ah xol sedd na nii nga toogee woon ci sama oto waaye tey maa ngi ci sa oto xanaa sant nga Serigne Touba bu baax de macha allah macha allah ah Baye Cheikh a ngi nii ah Baye Cheikh daal Serigne Touba ah man de ah.